waaw gis ngeen ne am na ñoo xam ne sax dañu ñaanoon ñu def vote bi tey waaye dem leen ne déedéet conseil yëpp ñu fi woon waaye dañ ko bàyyi ba altine bi di ñëw ndax euh, lii ñaan naan domaine agricole euh, dafa nekk ay jumtukaay yi nguur gi di indil askan wi normalement béykat yi ci wàllu infrastructure ci wàllu indi ndox ci wàllu organisation ci wàllu tàggat leen ci wàllu formation su ci kanam léegi monsieur Senghor dina ci gën a sori may wax ne dafa nekk mébét boo xam ne askan bi fii ci Diobass dañ ko yàgg am te gis nga bu ñuy demee léegi di ngeen gis xur wi lañ fa def commencé nañ fi def di fi béy soble di fi béy euh, chou di fi def euh, produit yu nekk donc jobaas euh, yàlla ñu may ñu am suuf yàlla may ñu aussi suuf ndox su bëree bëri la nekk ci suuf si donc li nga xam ne dafa nekk dak dañuy may ñu indi ndox moomu jébal ko askan wi te it di wax ne projet la boo xam ne askan wekk moom du projet boo xam ne feneen lay jóge askan wekk moom ñu jébalaat leen ko moo tax vraiment maa ngi delloo njukkal wax conseil ak population yi Euh, chef de village yi seen président mu ngi ñu sama wet Ablaye Thiandoum le CLCP ak euh, sunu jigéen Ndeye Fatou ak l' ensemble des conseillers ñoom Rose ñëpp ñu ngi fi mais may wax ne vraiment les jeunes et les femmes surtout ndaw ñi ak xale yi ak jigéen ñi dafa nekk loo xam ne lu am njëriñ la ndax li xale di jógee fii di Ndakaaru di fa nekk euh, marchand ambulant ba leneen bu mënee am infrastructure maanaam ndox. ñu tàggat ko ba mu nekk entrepreneur ci dëkkam dafa nekk loo xam ne lu am solo la te moo tax vraiment ñun dañ ci ànd euh, à 100 pour cent di wax président Macky Sall fii ci Jabaskat mën na nekk domaine agricole communautaire pilot boo xam ne bu mucc ayib lay doon ndax sorewuñu aéroport bi euh, ñu ngi jege nañu Thiès donc na nekk zone de production boo xam ne du ñu am problème commercialisation du ñu amit problème de stockage même ci exportation ndax aéroport baa ngi fi tabaarkalla autoroute bi euh, sant yàlla bu a baax. waaw parce que fii dañuy gérer gestion suuf euh, gestion boo xam ne wax dëgg yàlla dañ ci waxtaan bu baax concertation moo waral fii ci Diobass euh, ñu am fi suuf su bëri bëri lu mat fukki junni hectare a ngi fi ñoo xam ne askan bee koy béy te it bu ñu leen proposé ay projet xam nañu ne euh, seen njëriñ kese ci nekk loolu waral vraiment Diobass ñu ngi ci sant yàlla amuñu mos ñu am fi problème mu foncier te lu ñu fi voté yi dañ koy voté à 100 pour cent ndax gis ngeen tey waxtaan la pour jox nit xibaar jox leen information bu ñu jógee ci information ci la ñu doog a def ñaar yëpp tey waaye lépp rek fexe ba askan bi ku nekk am xibaar boo demee sa dëkk nga waxtaan sa nga gànnaay altine ak jàmm boo ñëwee voté ak jàmm loolu ndax mooy sunu mission ci conseil municipal bi euh, mooy ici suñu rôle en tant que maire pour ñu fexe daal ba lépp luy njëriñ ci dëkk bi ñu indi ko ci anam yu gaaw. tey am naa mbégte lool parce que li ma fi gis wax naa ko ci njëlbeen ci biir réunion bi nee naa euh, li fi xeeñ daal euh, niroo na lu neex ndaxte dañ ne cin bu naree neex su baxee xeeñ fii de xeeñ na lu neex. li ma fi indi tey te ministre bi maire euh, euh, euh, wax ma ne faw nga ñëw waxtaan ak sama conseiller yi loolu laa ñëw maanaam faram fàcce li nga xamante ne moom mooy programme bi li ñu fi nar laa bëgg laa bëggoon leeral nit ñi ndaxte laata ñuy délibéré faw ñi nga xamante ne ñoom ñooy délibéré xam ci lan la ñuy délibéré loolu laa ñëwoon fii wax leen lan mooy domaine agricole président de la république ci boppam moo taxawal programme bu ni mel ngir suqali maanaam mbéy mi càmm ji yarum jën transformation maanaam li ñu bëgg mooy ñi nekk ci dëkku taax ya mën na ñee ñi nekk ci kaw ga loolu la nar programme bi loolu moo ko tax a jóg loolu laa ñëw expliquer tey maanaam faram-fàccee mbir ci ci ci conseillers yi kon techniquement waaw waaw fii moom li ma dégg de parce que gis naa ne am na ñoo xam ne tey pare woon nañu pour délibérer kon nag ci fànn woowu awma ci benn benn benn inquiétude su ñu délibéré semaine prochaine ni ko maire bi waxee hivernage bi ñun pare nañu tamit pour jàppale ñi nekk déjà ci terrain bi pour que ñu mun leen a booster en attendant que infrastructure yi ñëw parce que notre Jobaas bokk na ci domaine agricole yi nga xamante ne bëgg nañ leen taxawal en 2016 bi kon ñaan bu tase ak amin la waaw mën nañu démarrer léegi loolu laa leen